nekk fii kilifa gu mag macha allah sëñ Mamoor euh, moom nag mooy euh, porte parole kër gi di sang bu baax yàlla seere na ni moment bi ñu bëggee interview bi fekk na téléphone am a ngi toj ñu ngi koy woo ci leneen loo xam ne ci mission kër gi la waaye ngir liggéeyu mag ñi ngir taxawaayam ak li tax ñu jox ko lii ak li mu moom te muy cëram te muy sang moom mii di doomu soxna moo tax mu nangul ñu loolu sang bi ñu ngi laa ziar ci bis bu tedd bi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xëpli safinatan bi kullil janna min daaratin min nan yaasan min nan ataaniyal markatu fii daari min nan inda tasin tadduxu la ni daari min nan gannaaw bi nu sante yàlla sunu borom noo ngi julli ci sayyidina muhammad di sant Serigne Touba Xaadim Rasool tey ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mhm. ba naa lii mu naa leen lislaam naalal ko Serigne bi mu àggale ko sagoom te nu ànd ko moom téeméeri at di tàmbali tey mhm. di saare ba fii ngeen mhm. nu ñaanalee ko ci ginnaaw Serigne bi te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom ñu ngi leen siyaare Serigne bi ma jox la directement rek euh, comme bëgg comme dama ànd ak samay collègues ma jox la directement rek suma jigéen moom mu njëkk wax ci la am lu laaj yu mu laaj su ko defee man ma dellu si laaj yu gàtt rek ñu ñu tëj incha allah. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi di kontaan bu baax ñu ngi bi ñu njëkkee rek mooy sa diggante Soxna Bally ku xam xam ne yow yaay porte parole Soxna Bally Soxna Bally su amee ay invité fii ci kër gi yow yaa koy waxal tey lan nga ñu mën a wax ci soxna si ak màggal gi ni mu koy waajee. waaw soxna si moom ak màggal gi ni mu koy waajee. mooy lii nga gis nii ci kër gi xëy na li muy màggal la caméra yi ñëw ak télé yi waaye soxna Bali moom nii la dëkkee moom nee naa ko li tax talooy détail mooy li ngay daj ci togg ak yàq nit mënu koo boole kay wax mooy fii nga néew nii kër gi li muy rafet rafet rafet fii fi mu ne nii du kër waañu ñu sëñ Muntaxa la xëy na nag liggéey bee barkeel xéewali sëñ Tubaa ñëw ba mu mel nii taaru ba mucc ayib waaye fii ci kër sëñ Muntaxa la bokk buñ ne waañu kër sëñ Muntaxa mooy kër soxna Bali mooy soxna Bali moom togg ak yàkkalu ko ñëpp xamee gan gu sëriñ bi am rek jàpp na ni moo la war a berndeel kon kon koo xam ne dëkk na ci loolu ba màggalu Touba jot te sëñ Touba ne bis bu dikkatee na ngeen ma sant la yàlla koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma sant la yàlla bu kenn xeeb ginaar ba naan mat la rey bu kenn naw jëlim ba naan du ma ko rey kon soxna Bali lu mu doon def benn dana ko ko yokk million ngir bégalee ko gani Serigne Touba yi waaye moom ci lii la dëkk ci togg ak yàkk ci la dëkk. dëgg ci togg ak yëkk ak ci berne ci la dëkk tey ci berne boobu est-ce que mën nañoo xayma xam ci budget ndaxte it kër baal yi ku fi ñëw gis li nga xam ne moom lañ fiy jox gan yi ak aussi niñ leen di joxee cër ci li nga xam ne mooy màggal bi même bu dul màggal sax mais bu ñu taxawee ci màggal bi mun nañ xam am xayma ci budget bi. waa budget bi moom du neex a xam. ndax mbirum sëñ Tuubaa déggoo li ma la wax sànq dane bu leen xeeb ginaar ba naan mat la rey bu kenn naw gëléem ba naan du ma ko rey mën naa ne bi weeru safar teroog léegi bis bu set danañu nga taal lu mat quatre-vingts mana nga dem ba tisbaar jot nga xam li yeneen délégation yi ñëw nga taalaat ci saa si sóor loo xam ne ceeb ba timis nga ko yàq kon mënuñu laa wax fii la toll ndax gan ñii ñëw moom kenn du leen limité te kër Sëñ Tuubaa bunt bi tëjuwul te kër soxna Bali moom muy màggal ak ba doon màggal fu waay duggee Touba boo fi ñëwee di nga añ da nga reer da nga naan kon loolu pour ñu calculer ko bala xayma ko du yomb ndax feek mënoo natt ñaatintey ñëw ci dëkk bi natt ñaataay siyaare sëñ Muntaxa ak murit yëpp li ñuy joxe addiya nga calculer ko mënoo xam budget bi ngay toggee nu mu toll ndax murit bu ne li nga am lépp da nga koy yemale ci bisub sëñ Touba rawatina ñoom ñi nga xam nag dañ leen di tudd di tudd sëñ Touba moo tax budget bi moom mën su ko xam xam naan daal lim man ak lim mënul lépp def na ko ci bis bi. sang bi euh, man ma la doon laaj benn laaj organisation bi nekk ci biir kër gi ak ni kër gi bëree nit te dara yënguwul lan mooy sa secret. waa secret bi mooy li olof ne ku yàgg ci njaw rek di njaw mooy lii dañ cee yàgg soxna yi lii la mas a xam lii la mas a def defe naa ni ay dressage ak traiteur moom moom bi mu ko defee ba bàyyi ko sax ci la ko nit ñi door a tàmbali kon loolu moom da cee yàgg. te loolu jiitu na sëñ bi toog toogaayam bii di sëñ Touba soxna Baali na May bintu di xaadim sool moo ko yar te soxna May ku ko xam-xam ni bu sëñ Abdou Lahad daan ganale Abdou Diouf ak ngan yu bari waañ wu mag bi kër soxna May la daan doon foofee la soxna Baali yaroo jimmi ci loxoom doomi sëñ Touba jooju tette ko yar ko ci togg ñam joxe ak séddale ak dimbilee kon organisation boobu day loo xam ne mën naa ne ñun ñëpp bi ñu ñëw ci kër gi fa leen ko fekk ndax loolu da koo jëlee kër bàjjanam indaale ko fii kon moo tax kër na Bali boo ñëwee li mbooloo mi bari bari bari kenn ku ne danañ da wutal dal bu baax nga nekk fa bu añ yi jotee amul xeej gi amul seen li ñuy tegal ministre bi di ko tegal président bi moom la ñuy tegal menuisier bi moom la ñuy tegal marchand ambulant bi ci biti ñëpp a bokk yam ndax ñëpp ay gani sëñ Tuubaa lañ amul xeej amul seen bernde yi daal jullit di ñëw ak taalibe yi ñoo tax ñu defar ko waaye nag organisation rek lañ ciy bëgg mooy dara bañ a am uh, sorxo sorxo gannaaw ñam yi yaatu na teen ndab yi bari na moo tax ñu di ko organiser ba benn toogaay du xat ba kenn ku ne li nga bëgg boo ñëwee di ko fek fii boo ñëwee dañ naan la ceebu naar baa ngi nii nga xam ne moom du am dara produit chimique xorom lay doon tuuti diwu ñor ak ceeb kese ak yàpp du am benn produit chimique du am jimbo du am dara ñun la mbaxala ngi nii ceebu yàpp a ngi nii paylaa ngi nii ceebu jën fii riir supp fruits de mer supp yeel lu mu mën a doon ñëpp a ci yam ni ni ab ministre ma ne taxaw ne nangam laa bëgg yow mii nga xam ne ñëw nga taxaw ak sa caméraman bi ñoom bu añ jotee luñ ne loolu lañ bëgg loolu lañ leen di tegal waaw. dernière question bu nekkee amul leen question tey ak jamono fi mu toll tey ak jamono ak internet tey ak jamono ak TikTok ba dañuy gis yenn attaques yi nga xam ne dañ koy def te sànq wax nga say kàddu soxna Bali nekkul ci ay détails tey loolu lañ nga ciy mën a wax ci jàngat ak fi jamono toll ak li nga xam ne mooy yoonu waaw attaques yooyu moom. jiitu na soxna Baali jiitu na sëñ Muntaxa jiitu na Saal jiitu na sëñ Blaat ndax attaques yooyu yoo tax bis bi am bu attaques yooyu amul woon bis bi du am mhm. xëy na jamono boobu TikTok daa amul internet amul waaye bu amoon danañ def sëñ Tuubaa lu raw lii ndax ndax li dégg nga mu ne maam Abdouloo kalaame ko ak borom ndar ak Ibra Fatim Sarr ñoo dëkkee dar dar naan ko moom mi daa mel ne lam da julbe buurub ñooro mbaa Cheikh Malick ba imaami ñooro mbaa ño xare Samba la Cheikh Oumar Fouti doon def sëñ Tuubaa loolu la bëgg a def moo tax tubaab bi xabtalu boo yónnee ko convocation bi nga xam ni moo ko jëlee fii ku dul sëñ tubaa nag sa bisub juddu ngay woote wala bis bi nga amee ndam moom bis bi ñu ko jàppee mënate ko mu bàyyi Cheikh Modou Moussa ak sëñ Fallou seen rongoñ wàcc seen bàyyi di dem te moom mii dem xamul fi mu jëm ñoom it xamuñu fu seen bàyyi jëm dana ñibbiseem da ñibbise dara wóoru leen seerafal toog maam Cerno toog sëñ Daam Abdourahmane sëñ Daaru Asan Njaay ñoom ñëpp nekk ci kumpa ñu génnee ko ci réew mii sept ans huit mois yoo xam ne kenn xamul ci lu ba mu dellu siwaat nag bi mu dellu siwaatee te loolu lépp tuumaa tax ak teg ci daram loo xam ne moom defu ko te kenn xamalu ko ko ba yóbbu ko ndar dajale fa conseil privé bu daje ñu créer ay problème parce que motif bi tax ñu yóbbu ko ci géej gi ba tey tubaab bi amu ko moo tax mu le conseil privé a été réuni au palais du gouverneur de l'AOF Afrique occidentale française n'ayant pu trouver aucun motif valable mooy amuñu benn motif ñoom waaye nag le colonisateur ne peut qu'inventer des prétextes faciles pour la déportation du Maroc non violent vers le Gabon nga xam ne foofu lañ ko jëlee ba mu dem Dakar dem Gorée Tabouk Indilos Akaraka Central Grand Bassin cap Congo Belgique Congo France Luanga Kabinda Lodiba Mayombe Ildi Buruki Katana Conakry Karambasa te bi mu dellusee dane maam Cheikh Anta Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko rusuma nga jaar ngeen jaar fi ma jaaroon seen bët du taa te kersa du leen jàpp fu ma fi dem jom laa fa wan ngor laa fa wane moo tax Sëñ Abdu Lahat wax ni nag jomama war ak fulla ndax bi Sëñ Tuubaa di julli ci géej gi bu fa desoon du ma juddu ndax Sëñ Tuubaa dem na ci géej gi ba ñibbisi Sëñ Abdu Lahat door a feeñ sëñ sooy bàyyi soxna Bali mi nga fekk si door a feeñ Sëriñ Saaliw ginnaaw géej gi la ñëw sëñ Abdou Xaadir ginnaaw géej gi la ñëw sëñ Ibrahima Mbacke ginnaaw géej gi la ñëw sëñ Abdou Borom Dër bi ginnaaw géej gi la ñëw sëñ Abdou Samad ginnaaw géej gi la ñëw sëñ Murtala ginnaaw géej gi la ñëw kon bu fekkonte ni pexe yi sëñ Tuubaa doon euh, sotti na bu ngeen demee kër sëñ Muntaxa tey di yóbbu seen i caméra mm-hmm. du ngeen ñëw kër soxna Baali mm-hmm. ndax bu boobaa kon ne soxna Baali du am mm-hmm. ndax bi muy dem ci géej 1895 tollu Ndar lañ na ko soxna Fatima du ko tuddee Basiiru kon nag bu fa desoon bàyyi doon caat kon kër sëñ am kër sëñ Sohaybu bu du am ya ca des yëpp du am waaye liggéey bu yàlla nangu nag moo tax kër yooyu yëpp am sëñ Tuubaa ñibbi si nag def lii mu def ne jaxalta sayri faw la ajji wal jihaat fi lat yooyu nuy wakkun di fii tamaat mm. kon moom ken amul payam kon sëñ Tuubaa dañ naan daal yàlla na nu ko yàlla fayal mm. attaque yooyu nag mm. amul solo ndax fan yee dégg naa ñu naan duñu màggali am ñu ne ñoom léegi ay ancien taalibe lañ mm-hmm. ña ko waxoon amul problème ñëwuñu dëkk baa ngi nii taa foo jaar fépp nit ñi dañuy xuus mm-hmm. te teewul yaa ngi ñëw oto yaa ngi ñëw saxaar saa ngi ñëw avion yaa ngi wàcc kon ñoom ñooñu matuñu benn pourcentage ci li yaakaar sëñ Tuubaa di ko gëm sëñ taxaa nag ma di ci def alerte ku taxaw naan dafa am intérêt ci kenn wala kenn da koo ñor yow da ngaa dof ndax première puissance du monde mooy sëñ Muntaxa lii tax ma wax la ko moo jooy joo joo Biden mais ca Amérique ak président Macky Sall président Gambie président Nations Unies ñoom ñëpp bu ñu xëyul liggéey kenn du leen fay par weer sëñ taxaa képp mm-hmm. mooy koo xam ne day xëy mm-hmm. sañ sa ba rafet mm-hmm. def mbaxana curu caraam julli ay farataam defi lawraatam génn sañ sa toog murid yi di ko rang di ko jox di ko jox ba mu jékki-jékki ne damaa sonn may leen ma may leen ma ma fattu ba ginnaaw tàkkusaan ngeen door maa joxaat ginnaaw tàkkusaan bu génnee daan ne damaa sonn nan ma mayaat une semaine damaa bëgg a noppalu murid teewaat seen xaalis di ko xaar ba semaine bi mat ñu ñëwaat ko ko joxaat kon kooku defe naa ni moom liñ koy jox sax moom xamul nu mu koy def moo tax dafay da koy dajale di teg bu ne mbënd mi am na mu génnee joxe bu ne jumaay tiwaawan mu génnee joxe masaalikul jinaan mu génnee joxe jumaay sàngam mu génnee joxe ndax moom liñ koy indil yàlla rek a tax ñu koy jox mu di ko defaat ci yàlla kon kooku amul kenn intérêt ci opposition amul intérêt ci pouvoir kenn taxu koo jóg kenn ñuru ko li mu war a am lépp sëñ Tuubaa defal na ko kon ban message nga am pour euh, taalibe yëpp pour daanelee loolu ban message nga am pour taalibe yi taalibe yi daal nanu xam ne mm-hmm. internet bi moom da cee am ñoo xam ne mm-hmm. da ngay gis sax ku def ab profil. Mm-hmm. def ci señ tubaa mm-hmm. ne man murit laa woon waaye bàyyi naa. Mm-hmm. kooku ba tey uh, wooxul dëgg. kooku yàqkat la. waaye dañuy jéem a influencer. waaye dama ne xeex boobu ñuy xeex du sotti ndax 1895 la xeex bi tàmbali. ñu jë ndax sëñ Touba 1895 ci la xeex bi tàmbali. te boobaak tey amuñu ndam. sëñ Touba lim def. sëñ bi xoolal li ma la wax. le 10 août 1895. lañ ko mën a te génnee ko dëkk bi mu dem. bi mu fiy dellu si waat ñu teg ko ci ab jaag 19 juillet 1927. Mhm. loolu est-ce que neex na si 10 août 1895. Mhm. lañ ko mënate yóbbu ko def ko prisonnier. Mhm. tegaatul bëtam ci dëkk bi ba bi mu fiy dellu si waat mooy bi ñu koy jébbal boromam. fan at ak ñett yoo xam ne lépp prisonnier la kon kooku te lépp ngir yàlla ak yonent bi ah? sababu xaybati anna la aradan anala min ku jaa wan akuna saabixan wan akuna xaadiman fi daw mi nee na le motif de mon départ à ndigsu ñu ne ko lu ko sabab mu ne dara ngir bëgg a doon kuy liggéey rasulullaay ca daw mi ak gamoo waaye wan akuna saabixan li xaw mi dama bëgg bu yowmal xiyaamee ba yaar jóor bi déew jóor weer ndey ak bàyyi xew yi ñu lat siraat ci kaw jaanama sama liggéey bi su ma ko jóoree ne yàlla jéggalal jullit yàlla jéggal leen naa yomal jamil kii que ce il est le sauveur de l'humanité il est venu pour pour pour pour sauver tout le monde. moom li waykat ne e et foule proviennent de l'océan Bamba est certes ce grand océan. prépare aujourd'hui le retour de mes vers Dieu se semer sans détour Cheikhul Khadim est un trésor qu'on doit con conquérir et et, et du doigt. kon nag murit yi nañu nàmmaat suñuy pas-pas influence yi ñu ñuy gars yi dugal buñ ko topp nañuy gëm suñuy sëriñ te topp li ñu top ndax booba tey nag ñu ngi ci ne affaire baa ngi dox di continuer ku ci génn nit du teemu dox te boo ci jàppee nag da nga ciy rafet rek ndax bëri ko bu teg ci mbartal màggalu suba gi ban message nga am pour tëjee ko ak euh, taalibe yeeg jullit yëpp taalibe yeeg jullit daal li may tëjee mooy ndigal yi sëriñ bi joxe ci dëkk bi ñun ñëpp nañ ko maase def bu kenn ne nii wala naa waaw na ñëpp maase rek ndigal li sëriñ bi dox a ci dëkk bi ak lim fiy bañ ñu ànd def ko màggal ko teg ko ci sunna li noonu naan tax si ma bi sunnati yàqu du naa li jannati ndax màggal tamit bisub sant yàlla la du bis boo xam dañ cee war a daje di fo wala di tëbaka dal wala leneen bisub sant la yàlla Serigne tubaa la ku mu neex na sañ sañse ba rafet xeeñ parfum bu neex di lekk lu neex di sant Serigne bi waaye nag nañ ànd de def ko loo xam ne rek buñ ci diine fekkee wala bu sëñ Touba duggoon jootaay bi duñu sotti ni toogee li ñu sëñ bi wax daa nañ ko def ndax murit pour nga doon ko sëñ Touba dafa ne si faaw saadixul murit bexti saar arbaxatu nasam toxoo xaw faf nee na ngir doon murit lii lay laaj asidduqu fi mahabbati cheikhi abad sunanti saali amri xew sul warat wa tarku lixtiraat mutlaxan walaw bi baatin alay fi maa wa maaxoo salabi lixtiyaar li xunni sanni bilaa inkaari li sëriñ bi bëgg na ko def ku xool na ko xool bu nee weex na nga ne tàll bu nee ñuul na nga ne kukku ni asalaamaaleykum waaw kooku moo nekkoon porte parole kër gi ñu koy gërëm di ko sant yàlla na yàlla def sutura yàlla may nu gudd fan ak wér jërë ngeen jëf amaani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 هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر